donc maa ngi leen ci sant di leen gërëm di sant di gërëm tamit journalistes yi ci seen teewaay parce que tey xam nañu ni Thiès bëri na ay programme li ma bëgg a tàmbalee mooy ñëwaat ci parenage bi fi amoon nit ñépp gis nañu coow li mu indi ñun nag bi ñu demee ba ñu ne suñu parrainage baaxul dañoo tàmbali ci sant dama war a wax sax santaat yàlla bu baax parce que moo ñu war biñ ko defee ba pare ñu sant gërëm ñépp ñi nga xamante ni jàppale nañu ci liggéey boobu ci liggéey wut parrainage bi waaye tamit ci liggéey traitement informatique parrainage bi tamit puisque dafa am ñun bi ñu demul dafa am ñu dem ñoo ñu jàpp naa ni ñun ci suñuy teggin dañ leen war a féliciter ñaanal leen yàlla ñeneen ñi nga xamante ni comme ñun jotuñoo dem tamit ñu encourager leen ne leen yoon du yem ci benn waaye nag suñuy xalaat mënuñu bañ a dem ci junnee junnee nit yi nga xamante ni ci Casamance ba ci Fuuta ci Tamba cees ba Kaolack Fatick ak fépp feneen gox ci réew mi amoon nañu yaakaar ci ñun wóoluñu ba pare nañ ñooñu ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ni seen kóolute de rëy na lool ci ñun mënuñu leen ko fay waaye looloo tax nag ñuy dëgër ci taxawaay bi ñu taxaw waaye su loolu weesoo fan yii ñépp gis nañu coow bu juddu ñu commencé wax ni élection yi dañ koy reporter wala dañ ko reporter foofu nag buggoon nañu wax solennellement ni élection bi li ci des motul sax weer fii ak semaine bii di ñëw ñu dugg ci campagne électorale jàpp nañu ni amul benn motif amul dara lu mën a waral ñu tàkk élection yi ñuy woo état bi ñuy woo nguur bi di woo ñu ko jiite ci ñu respecter d'abord ñu jël jumtuwaay yépp pour que campagne bii di ñëw campagne électorale bii di commencer ñëpp ñi nekk kandidaa war ci mën a bokk suñu bokkee tamit mu nekk campagne bu bi parce que Sénégalais yi lépp lu ñuy bëgg def jàmmaleen ko gënal jàmmaa gën lépp loolu nguur bi moo ci war a jël mesure yooyu suñ ko defee ba pare sénégalais yi aussi dem calmement le 25 février xool kandidaa buleen leen ñu woteel ko ci jàmm ñëwaat ci jàmm ñu yaakaar ni candidat boobu ñuy élire le 25 février dana nekk candidat bi sénégalais yi di xaar parce que candidat bi sénégalais yi di xaar. mooy kii nga xamante ni moom moo mën a indi changement yi sénégalais yi bëgg sénégalais yi de yàgg nañoo xaar changement duñ ko jot gis nañu fii bi 2000 bi ñu amee première alternance yaakaar bi ci amoon yépp dafa mujjee tas 2012 ñu ne deuxième alternance yaakaar bi tasaat li ko waral nag jàpp nañu ni alternance yooyu yëpp dañ ko def mu nekk changement waaye rupture vertueuse mooy changement ci doxalin moo amul changement ci doxalin ci def ay réformes politiques def ay réforme ci institution yi def ay réforme ci koom-koom bi def ay réforme ci sur le plan social ak tamit am volonté politique pour def réforme yooyu loolu moom moo amul woon ci suñu njiit yooyu 2024 nag beneen rendez-vous la parce que gis nañ ñu dynamique de changement enclenché nañ ko depuis 2022 dynamique changement boobu jàppee nañu ni que c'est irréversible waaye nag bëgguñu changement alternance bu àndul ak alternative dañoo yaakaar ni président bi ñuy am war na am taxawaay ba sénégalais yi 2024 du nekk troisième rendez-vous raté loolu nag sénégalais yi suñ ko bëggee ku ne ci ñun fépp fi nga nekk danga nga war a jéem def sa wareef looloo waral ñun personnellement ci taxawaay bi ñu yàgg a taxaw ne ñun de intérêt réew mi lañu jiital ñun de changement la ñu bëgg changement boo xamante ni ci jàmm la changement boo xamante ni moom mooy mën a tax sénégalais yi lépp lu ñuy jooy. seen rongo jooyu mën a fer loolu ñun ci taxawaay boobu la ñu nekk ba tey waaye nag nit ñi xam nañu ni changement boobu fi muy njëkk a commencé mooy ñun fi ñu wax ni réew priorité priorité bi moom mooy justice moom mooy yoon parce que importance yoon ñépp a ko xam ci misaal réew su nekkoon kër yoon moom mooy nekk fondation ñépp xam nañ ni fondation ci kër su dëgërul kër boobu dafay nërmelu te réew mi toogoon nañu fi ay jamono yoo xamante ni ñépp tiitoon nañu te loolu yépp ci justice la jóge looloo waral justice bi nga xamante ni kenn mënut naa table mu ngi ci crise crise boobu lu ko indi moom mooy nguur a duggal loxoom ci biir crise boobu tamit lu ko indi moom mooy dafa am ay loi yu nekk ci suñuy biir charte yi loi yooyu c'est inadapté dañ ko war a soppi crise boobu tamit lu ko indi moom mooy justice joxuñu ko ay moyens crise boobu lu ko indi enfin moom mooy justice boobu amul ay recrutement ba magistrat yi greffier yi avocat yeeg yooyu yëpp mën a nekk ñu taxaw taxawaay ba justice mën a def liggéeyam donc nécessité benn reforme bu ñu tuddee réforme d'ensemble parce que réforme suñ koy def waruñu laal waruñu naan dañuy taf yëngal réforme dëggantaan la justice sénégalaise soxla te réforme boobu nit ñi di xaar ay proposition yu pratique yu mën a garantir indépendance su magistrat yi yu mën a garantir justiciable yi ñi soxla yoon fépp fuñ ko soxlaa jot ko yoon tamit gaaw parce que yoon nit ñi gis nañu ni dañuy ku ci dem tribunal da nga xaar ay weeri weer ay ati at pour ñu mën la atte ñu gis tamit ñu respecter droit yi droit justiciable yi équilibre entre les parties nga xamante ni ñàkk daraja walla ñàkk alal du tax nit ki dem yoon jàkkaarloog nit boroom alal boroom nguur walla leneen nga tiit parce que ñi lay atte xam nga ni am nañu ay ndëgërlaay maandu nañu ba ci dëgg rek lañu lay àtte loolu nag suñ ko bëggee fi ñu war a mën a jaar moom mooy ñu réformer conseil constitutionnel ñu réformer conseil supérieur de la magistrature ñu réformer politique pénale ministère de la justice ñu dindi yenn loi yoo xamante ni moom mooy tax nguur képp ku mu bëgg jàpp jàpp la képp ku mu bëgg tamit bàyyi prison mu bàyyi la prison ci diir bu mu ko neexee loolu yépp ñu taxaw ci ñu jël tamit euh, recruter recruitement exceptionnel ay magistrats ay greffiers ay éducateurs spécialisés ay assistants sociaux ay garde ay agent pénitentiaire ak ay avocat naa ci dellu parce que réew mi su ñu bëggee nag dëgg-dëgg justice taxaw fi ba réew mi dal ba réew mi li ñu bëgg ñu nekk ci ñun jàpp nañu ni am na juróom-ñaari mesure yoo xamante ni war nañ ko jël loolu nag ci suñu expérience u nitu justice yàlla may ñu ci suñu carrière ñu exercer pratiquement toutes les fonctions judiciaires jóge ci greffier ci juge ci procureur ba léegi nekk avocat nekkoon tamit ci ëtt nekk membre de l'UMS nekk membre conseil supérieur ak tamit bi ñu taxawee nekk acteur politique ñu ne justice moom mooy priorité priorité yi ci loolu lépp nag moo tax loolu dañ cee yàgg xalaat moo tax ci tamit échange yu ñuy am parce que suñuy xel rek doyuñu dañoo dem laaj ñeneen ñu nekk ci justice ay avocat ay magistrat ay professeur d'université ñu boole xalaat yooyu yëpp ak aspiration sénégalais yi ñuy dajal ñu tënk ko ci juróom-ñaari mesure juróom-ñaar yooyu bu ci jiitu moom mooy ñu réformer conseil supérieur de la magistrature conseil supérieur de la magistrature mooy ëtt bi nga xamante ni fa la ñuy affecté magistrat waaye mooy tamit euh, fu ñu leen di attee ci mbiru disciplinaire conseil supérieur boobu ay magistrat dong nga fa nekk ak président de la république ak ministre de la justice lu ñu wax mooy dañ ko war a ubbi ba représentant corps social bi yëpp maanaam ay député maanaam avocat bu jóge ci baro bi maanaam ay professeur université ñii nga xamante ni société civile bi moo leen tànn ñeneen ñi nga xamante ni université moo leen tànn ñooñu ñëpp ñëw dugg ci conseil supérieur de la magistrature. nga xamante ni léegi magistrats yi dinañu gën a am ndëgër lay gën a am garantie parce que critère objectif yi war a wax tax magistrat am poste walla am responsabilité moom mooy jub ak moom mooy compétence mën sa liggéey xarañ ci ñetteel bi moom mooy indépendance magistrat dafa war a xam ni dafa war a moom boppam ñeenteel bi nag c'est sacré ci magistrature mooy ancienneté ñu réformer tamit conseil constitutionnel bi nga xamante ni coow li jóg na fi parce que conseil constitutionnel juróom-ñaar membre yépp président la république moo leen di tànn dañoo ne wolof njaay dafa ne ku ëmb sa sànkal ëmb sa sutura ku lay abal bët fu la neex ngay xool looloo tax ñu ne ci juróom-ñaar yooyu danañu bàyyee président de la république mu nome ñaar yeneen juróom yi kenn ki assemblée nationale tànn ko keneen ki magistrat yi seen bopp xool seen biir tànn kenn keneen ki avocat yi xool seen biir tànn kenn keneen ki professeur université yi xool seen biir tànn kenn société civile nag tànn tamit benn professeur d'université parce que n'importe qui warul nekk membre conseil constitutionnel da nga war a am xarañ ci mbiru yoon donc mu nekk tànneef boo xamante ni nit ñi fu ñuy jógee dana assurer indépendance su ëtt boobu ñetteelu mesure bi mooy réformer politique pénale ministère de la justice parce que ministère de la justice xam nañu ni moo nekk ci kaw procureur yi parfois dafay joxe ay instructions individuelles ci affaire affaires ñu ne loolu dañ koy dindi politique pénale dafa war a am parce que nguur bu ne dafa war a ne man dey nii laa bëgg def ci accident de circulation bëgg naa ci jël telle mesure ci càcc mi càccu euh, euh, njur mi lii laa ci bëgg def ci nit ñi violence bi am rey yi lii lañ bëgg def loolu moom mooy politique pénale donc ce son des instructions général la ñu mën a def waaye ne ministère de la justice warul ne nañu jàpp kii bàyyi kii parce que loolu ce sont des instructions individuelles loolu magistrat yi ci seen liggéey ñoom ñoo war a tànn loolu ñeenteelu mesure bi mooy abroger dindi ci code de procédure pénale benn disposition 139 du code pénal mooy permettre procureur parce que nguur su fekkee mën na ko jox ay instruction pour mu topp nit nguur boobu mën na ko permettre bi mu maintenir parce que disposition boobu moom mooy may procureur suñu waxee ni am na atteinte à la sûreté de l'État suñu jàppee nit juge d'instruction mënu ci dara parce que tant que procureur opposé wu na ci sa demande de liberté provisoire tant que procureur bëgg na ñu jàpp la dañ lay jàpp tant que bëgg na bu ñu la bàyyi duñ la mën a bàyyi donc loolu magistrat yi dañoo war a retrouver seeni pouvoir ñu xamante ni juge d'instruction bi moom mooy xool dossier bi su fekkee lu garaaw la mu teg la ci yoon suñ la waree téye diir bi ñu la war a téye avant ñoo àtte moom moo koy décider waaye disposition yooyu dañoo xool chaque fois opposants yi dañ leen koy teg waaye ku ci ñëw nguur nga maintenir ko boobu dañ ko war a dindi ba mu jeex parce que nguur waru fi nekk rek di topp ay nit te tegu ko ci yoon juróomeel bi mooy ñu instaurer li ñuy wax juge des liberté et de la détention parce que juge d'instruction dafa am pouvoir yu yu jéggi dayo képp ku ñëw même témoin même nga nekk seede nga dugg ci biir bureau juge d'instruction su ko neexee mën nga fa bañ a génn kooku nag am pouvoir boo xamante ni c'est quasi divin ci liberté nit ñi te mën na ko bañ a teg ci fu dëgër kooku dafa war a am kenn ku taxaw contrôler liggéey boobu kooku la ñuy wax juge de la liberté et de la détention su fekkee war nañu tëj nit juge d'instruction bi moom lay laaj bu mu motiver donc ñaari loolu dana créer benn équilibre mu mën a gën a garantir les libertés et les droits individuels juróom benneel bi moom mooy parce que loolu duñ ci wax lu bëri améliorer condition de détention suñu waxee détention rek nit ñi dañuy xalaat ni prison waaye ñiy nekk garde à ci police yi ak ci gendarmerie gis nañu foofu condition de détention yu metti la ñu bëri dañ lay wax ni man ci ay karo laa fanaan fa def ñaari fan ñetti fan avec les retour de parquet ñu ne dañoo war a aménager équiper les cellules de détention des unités de police et de gendarmerie ñu aménagé ko par équipé ko parce que nit mën nga def dara lu méngoowul ak yoon mais dañ la war a traité comme nit waruñu traité nit ñi comme ay bàyyi ma ci police yi ci gendarmerie ak ci prison yi ñu tabax réabilité équipe ay prison population su mu yokk il faut que ñu prévoir loolu bien que waruñu privilégier la détention waaye war nañu euh, tabax parce que xam nañ ni capacité prison yi fi nekk yëpp dépassé nañu seen capacité ci lu sore sore ñu recruter nag personnel pénitentiaire bi mais suñu leen recruter ñu former leen à l'encadrement et à la préparation à la réinsertion sociale nit ñi dañuy dugg prison niñ fa duggee noonu lañ fay génnee duñ leen préparer loolu personnel d'encadrement bi mu nekk garde pénitentiaire yi mu nekk assistants sociaux yi war nañ leen former ci loolu ba nit ki su su fekkee tooñ na société bi suy génn mu nekk kenn koo xamante ni mën na duggaat ci société bi parce que réparé na domage bi mu defoon société bi loolu nag dañ ko ci war a préparer juróom-ñaareel bi bu mujj moom mooy recrutement spécial ou exceptionnel ay magistrats ñu xayma ko ci deux cent magistrats ci juróomi at maanaam ñeent fukk par at ñaar téeméer deux cent maanaam ñeent fukk par at ci juróomi at deux cent greffiers deux cent éducateurs spécialisés parce que nit ñi xamuñu ni éducateurs spécialisés ak assistants sociaux yi ñu ngi ci tribunaux yi ñu ngi tamit ci prison yi ñu ngi fii bëri fi ñu ñu formé ñu ngi fii liggéeyuñu te liggéey mu ngi leen di xaar fépp ñu recruter tamit ñetti téeméer yi avocat ci juróomi nit ñi dañuy wax souvent indépendance de la justice dañuy wax souvent nañu respecter droit yi parfois ñi koy wax ñi koy wax ñooy tëj bunt yi ba jeunes yi nga xamante ni des centaines de jeunes yu nekk fii am seen maîtrise en droit dañoo tëj buntu yi ba mënuñu nekk avocat mënuñu nekk magistrat te ci xayma nit ñi département bu ne dañ fa def benn tribunal suñu xayma ci 46 départements yi nekk Sénégal lu tourné fukk ba fukk ak ñaar rek ñoo ci am avocat suñu doon xool tribunaux yi suñu leen xaajoon juróom ñeent yépp amul avocat bu fa toog waaw nan lañu mën a respecter droit yi fekk ni avocat yi ñi am alal walla acteur politique yi walla ñu dëkk Dakar walla ñu dëkk Thiès rek walla ñu dëkk ci dëkk yu mag yi rek lañuy mën a défendre citoyens yi devant la loi dafa war a nekk réalité nit ku ne su dëkkee na dëkk Ranérou Ferlo dëkk feneen ak feneen ci dëkk yi war na am garantie que su fekkee ni am na lu mu def ñu mën a am mu mën a am ku taxaw ku ko taxaw ba duñu violer ses droits du ñu violer ay droits fondamentaux mu mën a yeme eh, eh, ñu mën a yemale tous les citoyens devant la loi mbokk yeeg xarit yi lii dey moom mooy programme transformationnel bi ñu xalaat ci justice moom dañ ko nag jébbal sénégalais yi d'abord ñuy lancer après benn pétition citoyenne sénégale yi xool ndax waaw walla déet li ñu proposé nii su jubee ci ñoom ñu signer pétition boobu pour ñu obliger après candidat yi ñu engagé wu ci lii parce que ñun jàpp nañu ni justice tant que changé wul changement yi ñu bëgg ci réew mi du am donc ñu ngi leen di santaat di leen gërëm ci seen teewaay di leen jox rendez-vous ci prochain jours yi ñu xool évolution lii nga xamante ni moom mooy euh, euh, euh, lii mooy initiative bi nga xamante ni moom la ñu jël pour suñu réew di leen sant di leen gërëm. Mesdames, Messieurs, je tenais d'abord à vous remercier très sincèrement d'avoir bien voulu répondre à notre invitation pour cette déclaration que nous avons faire en perspective de l'élection présidentielle du 25 février prochain. Remercier nos chers doyens membres du parti euh, dont le soutien constant et indéfectible me va droit au aussi euh, euh, nos amis journalistes d'avoir bien voulu honorer l'invitation malgré plusieurs programmes que nous avons aujourd'hui très chargés dans la ville de Thiès. Je voudrais au préalable revenir sur l'étape très controversée du parrainage pour rappeler qu'après l'invalidation de notre parrainage, j'ai tenu tout d'abord à rendre grâce à Dieu. J'ai remercié ensuite tous celles et ceux qui nous ont aidés et soutenus dans, le travail de collecte et de traitement du parrainage. Ensuite, naturellement, j'ai félicité les candidats admis et encourager aussi ceux qui n'ont pas eu cette opportunité à persévérer. Mes pensées vont toujours vers ces dizaines de milliers d'électeurs, hommes et femmes, jeunes et personnes âgées, qui nous avaient fait dépositaires de leur confiance en ah, nous parrainant. Je le redis ici, toute notre gratitude, leur confiance nous honore et nous engage pour l'avenir. Je je voudrais aussi préciser qu'après le parrainage, je n'ai pas usé nécessaire de faire partie d'un quelconque collectif au regard de l'analyse objective que nous avons faite sur les motifs d'invalidation de notre parrainage. Je voudrais enfin appeler solennellement au respect du calendrier électoral. Le processus est presque à terme. Tout report de l'élection qui doit se tenir dans moins d'un mois n'est envisageable à aucune hypothèse. L'État doit par conséquent prendre toutes les dispositions pour une campagne électorale inclusive et paisible et aussi permettre à nos concitoyens d'aller aux urnes le 25 février pour choisir leur nouveau président, qui apporter les véritables changements souhaités par les Sénégalaises et les Sénégalais. Est-il besoin de rappeler que les deux alternances intervenues en 2000 et en 2012 n'ont pas été porteuses de ruptures vertueuses tant souhaitées par les populations, faute d'une part de réformes politiques, institutionnelles, économiques et sociale, mais surtout faute de volonté politique pour les mettre en œuvre. Pour que 2024 ne constitue point un troisième rendez-vous raté, il est impératif que les valeurs d'éthique et de morale soient remises au centre des préoccupations Cela afin de garantir que les engagements des acteurs politiques seront respectés. Dans ce contexte, il me semble crucial que chacun, à sa place et selon ses moyens et capacités, puisse réfléchir à la manière dont il peut être utile à l'avènement du changement que nous souhaitons pour notre cher pays. M'appliquant personnellement cette exigence de demeurer en toute hypothèse une force de proposition et d'engagement, j'ai souhaité partager avec tous nos concitoyennes et concitoyens et les candidats à l'élection présidentielle mon diagnostic sur ce qui me semble être probablement le plus grand chantier de notre prochain président, je veux parler de la réforme de la justice. En effet, l'importance de la justice, sa place centrale dans notre démocratie et le rôle essentiel qu'elle joue dans l'équilibre de la société ne saurait être discuté. Il n'y a pas de paix pas de démocratie, pas de développement, ni de liberté, ni d'équité, si la justice n'est pas libre. C'est pourquoi l'indépendance de la justice, c'est-à-dire l'absence de toute soumission des magistrats à des pouvoirs extérieurs dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, doit être une constante préoccupation. Mais il est évident, même pour l'observateur le moins averti, que la justice de notre pays traverse depuis quelques années une crise profonde liée surtout à l'émission de l'exécutif dans le judiciaire, à l'inadéquation des textes de loi et à l'insuffisance des moyens humains et matériels. la nécessité d'une réforme d'ensemble du système judiciaire et du système pénal ne saurait donc être discutée. En effet, le malaise actuel de la justice ne saurait être résolu par des réformettes ou des demi-mesures, à rebours des chantiers de fond tant attendus. Il faudra précisément, dans une approche holistique, faire des propositions pratiques pour garantir l'indépendance des magistrats, l'accès à la justice, la célérité des procédures, le respect des droits des justiciables et l'équilibre entre les parties. Pour être efficace et efficiente, cette réforme doit être accompagné de moyens humains et matériels adéquats. Il s'agira précisément de réformer le Conseil constitutionnel et le Conseil supérieur de la magistrature, de réformer la politique pénale, d'abroger certaines dispositions légales attentatoires aux libertés individuelles et aux droits humains. est de procéder à un recrutement exceptionnel de magistrats, d'avocats, de greffiers, d'éducateurs spécialisés, d'assistants sociaux et d'agents pénitentiaires. Il apparaît donc clairement que si la justice compte toujours jouer son rôle de régulateur social, bénéficier de la confiance des justiciables qu'ils soient demandeurs ou défendeurs, partie civile ou prévenus, elle ne doit pas faillir à sa mission fondamentale d'une justice indépendante, impartiale, accessible et efficace. Mes chers compatriotes, entre une justice aux ordres et une république des juges, il y a une voie médiane faite d'équilibre et d'équité. Nous avons assurément toutes les cartes pour donner corps à cette troisième voie, la justice est à une nation, à un pays, ce que les fondations à une construction. Quand elle n'est pas solide, naturellement, tout peut s'effondrer. Elle revêt le statut de condition sine qua non de pérennité et de stabilité de notre projet de commun, vie, de commun vouloir de vie commune. Il faudra en effet que les justiciables retrouvent leur confiance en leur justice. Me fondant sur mon parcours d'homme de justice et mon engagement subséquent d'homme politique, j'aimerais aujourd'hui vous proposer à la fois un contenu et une méthode. Le contenu, c'est ce que j'ai appelé la réforme de la justice, constituée de sept mesures fortes que je m'en vais vous exposer dans un instant. Et la méthode, c'est matérialiser l'adhésion populaire à ces mesures par une large pétition et obtenir l'engagement solennel des candidats de rupture pour la signature d'un pacte pour la réforme de la justice. Je m'en vais donc vous énumérer ces sept mesures constitutive de la réforme de la justice, qui sont à la fois l'émanation d'une volonté populaire et la formulation des attentes maintes fois répétées par les acteurs de la justice. Ces mesures sont les suivantes. 1. Réformer le Conseil supérieur de la magistrature dans sa composition comme dans son fonctionnement. Concrètement, il s'agira d'une part, par l'ouverture du Conseil aux personnalités extérieures à la magistrature, notamment les parlementaires, les professeurs de droit, le barreau et la société civile. Et d'autre part, en instaurant une procédure inclusive et transparente par un appel à candidature avec des critères de sélection objectifs comme la probité, la compétence, l'indépendance et l'ancienneté qui sont sacrés pour une magistrature indépendante. Deuxièmement, réformer le Conseil constitutionnel en mettant fin au pouvoir exclusif de nomination de ses membres par le président de la République, qui ne pourra ainsi nommer que deux membres parmi les sept. Les cinq autres seront désignés comme suit. Un par l'Assemblée nationale, un par les magistrats, par le barreau, un par les universités et un professeur de droit désigné par la société civile. Troisième mesure, réformer la politique pénale du ministère de la Justice en la rendant impartiale, se limitant à des directives générales, à l'exclusion des instructions individuelles dans les affaires particulières. Quatrièmement, abroger l'article 139 du Code de procédure pénale qui permet au ministère public de faire placer et de maintenir en détention les personnes poursuivies pour les infractions contre la sûreté de l'État en vertu des articles 56 à 100 du Code pénal. Nous savons tous que ce sont ces articles et cette disposition du Code de procédure pénale qui permet au pouvoir de détenir et de maintenir en détention n'importe quel homme politique ou n'importe quel autre acteur de la vie politique du Sénégal. instaurer un juge des libertés et de la détention qui décidera désormais du placement à détention provisoire et les éventuelles demandes de mise en liberté en lieu et place du juge d'instruction. Sixième mesure, améliorer les conditions de détention, non seulement dans les unités d'enquête, mais aussi dans les prisons. Concrètement, en aménageant et équipant les cellules de détention dans les unités de police et de gendarmerie, en construisant, réhabilitant et équipant les établissements pénitentiaires et en recrutant et formant à l'encadrement et à la préparation à la réinsertion sociale des condamnés les agents pénitentiaires. Septième et dernière mesure, faire un recrutement exceptionnel de 200 magistrats, 200 greffiers, 200 éducateurs spécialisés et assistants sociaux et 300 avocats sur cinq ans pour renforcer la célérité et l'efficacité des procédures et aussi garantir l'accès à la justice et le respect des droits de l'homme. Ce recrutement exceptionnel permettra ainsi non seulement de, de résorber le déficit du personnel judiciaire, mais surtout le déficit criard d'avocats dont on ne parle presque jamais. Parce que figurez-vous sur les 46 départements que compte le pays, les avocats ne sont présents que sur une dizaine de départements. Ce qui veut dire que les justiciables sénégalais qui se trouvent dans près de 36 départements, donc les 4 cinquièmes, n'ont aucune garantie de respect de leurs droits parce que les avocats sont concentrés entre Dakar, Thiès, Saint-Louis, Kaolack et Ziguinchor. Donc garantir les droits veut aussi dire que les avocats resteront présents, resteront présents partout où besoin se fera sentir. Voici donc le puissant programme transformationnel de notre justice que nous soumettons au jugement éclairé du peuple sénégalais, autour duquel nous souhaitons obtenir l'adhésion de chacun des candidats de l'opposition à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Par cet invite formel à s'engager devant la nation nous sommes convaincus de faire œuvre utile. Par rapport à ces enjeux cruciaux, chaque candidat se déterminera en toute transparence et chaque électeur choisira en toute liberté et en parfaite connaissance de cause. Je vous remercie de votre aimable attention et vous donne rendez-vous dans les prochains jours pour le suivi des dynamiques d'adhésion autour de cette démarche que nous croyons salutaire.